موعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نرقى الجنان بحبه لن تستقيم حياه به bi lu ko tax a jóg rek mooy yar suñuy njaboot ci diine en même temps jàngal leen français alquran ak arabe en même temps rattaché ci anglais donc fàttewuñ tamit informatique bi nga xam ne suñu jamono bi ñu toll ku ko jàngul doo dem fenn yu yëpp dañ ko jël rattaché ko suñu programme pour def euh, maanaam excellence ci xale yi ko defee nga xam ne duñu ñee kenn donc loolu moo suñu taxawaay fii ci école franco arabe daaru tafsir préscolaire la ba sixième ba cinquième donc dañuy tàggat xale bi ci alquran arabe ak français il n'a rien à perdre damay gis parents yi parfois ñu ne franco arabe maanaam arabe bi ëpp doole wala lii non sa doom bu jàngoon sax ba CM2 boo ko fi wala ba cm boo ko fi indee ñun dinañ ko xamal diineem lu mu war a jàng ci diineem te français du ci perte dara arab bi sens la ci élève bi donc il n'a rien à perdre xamaa la ci diineem kon ñun dañuy jàpp ne loolu kenn amul jëgam donc ñu ngi invité parents yi fii ci Sénégal wala diaspora bi à que ñu gëm école franco islamique yi xam nañ ne euh, ñu xam ne résultat dañ koy def donc arab alquran ci ku mu jëkk rek sa bopp rek dara mënu la tëj ci àdduna ndax école baa ngi ci euh, côté 56 bi bu fekkee beneen côté bi ngay jóg bu fekkee côté pénitence bi ngay jógee ñoo ngi côté pharmacie Baye Niass donc suñu programme c'est du préscolaire au moyen donc CI préscolaire CI ba CM2 en même temps 6e 5e ubbi nañ ko ren ah su ngeen ma wowe fi pour ma témoigner école daaru Tafsir dama ci sawar parce que sama doom yi surtout que depuis bi mi amé 4 ans la commencé di jang foofu yokkute rek la ci gis machallah école bi mom machallah allah ku yor dom dafa wara yobbu yóbbu ci école boobu daaru Tafsir euh, baax nañu mën nañu xale Masha'Allah, allah man depuis que j'ai commencé à mon dama dama dal je m'appelle Kadjatou Ndiaye je suis élève à l'école franco-arabe d'Arutasi depuis la matinée. c'est cette même année que j'ai eu mon CFE option franco-arabe. Je remercie beaucoup mes parents de m'avoir choisi une telle école qui permet d'apprendre le Coran, l'arabe et le français en même temps. Enfin, je remercie le directeur et l'ensemble du personnel enseignant.